dañoo amoon yaakaar ni que élection yi dana jaar ci yoon après les élections nit ñi dañ mën a dem voter ba pare sénégalais tànn ko ñu tànn ñoom ñu mën a génn dem ñibbi seen kër mais instant bi nii avec le champ politique ni mu configuré woo kenn xamul tey jii ni élection yi kan lay am et j'aimerais aussi revenir sur le cas d'un de nos détenus ki ñuy wax Saliou Diop ba nga xamante ne que tey mutinerie bi jotoon a am euh, euh, biir euh, prison Rebeuss am na ci tey jii nii ay ay ay gaañu gaañu parce que paraît dañ ko fa dóor ba damm loxo bi jabaram mi ngi ne toog il suuf énormément paraît guddi gi tamit du nelaw waroon ko defal prise en charge yóbbu ko hôpital faj ko dans des conditions les plus idoines ba léegi jabaram mi ngi ne toog mën na seede donc bu moo tax bu ma déggee démb le président di wax ne dans les prisons amul torture day wax lu ko neex day wax lu ko neex c'est parce que xamul lu fa xew xamul lu fa xew ndax boo mënee jël détenu dóor ko ba damm ko ah kon kay loolu moom doy na waar beneen affaire te nous interpellons la communauté internationale et nationale la les com les organismes des droits de l'homme pour ñu taxaw ci ndaxte booy li ñu dund ci kaso gi du yoon dëgg du yoon defuñu dara duñu ay sàcc duñu ay agresseur ñi ñoom ñëpp ay responsable leen koo ci koo ci jël tey jii nii toog wax ak moom wala koo ci dem seeti dana ne man lii laay liggéey lii lay liggéey am na ñoo xamante ne dañoo wàcc liggéey sañu jàpp leen dóor lañ ci kaso gi ison ont perdu leur moo tax ci phase boobu en tant que représentant du collectif des ex ñi ngi siy liggéey liggéey bu am solo maanaam recenser tous les détenus en fonction de leur catégorie socio-professionnelle et euh, sociale à travers une base de données jéem a xool tamit ak peut-être partenaires yi nga xamante ni ñu ngi solliciter ñu xool yan voies et la ñuy def tey jii nii pour ñu